jamono ji ñu toll xam nga ak jamono jamono ji ñu jëm buñ ci taxawul xam nga ulul amri yooyu mooy ñan du xalif généraux yi déet waay naa la wax lii du borom xam-xam yi ulul amri yooyu xam nga ñan la mhm. jamono bu nekk ak la tase la cee xew ña ñu jël suñuy carte dénk leen ko ñooy ulul amri c'est normal c'est logique amul logique tey jii ñu ngi ci corona ku ñuy déglu médecin yi da dem jox sa bopp xalif général déedéet nañu may nit ñi jàmm pas c'est vrai que pour le moment moom médecin yi ñooy déroulé. wa ulul amru ulul amru jooju. médecin yi la. médecin yi collaboré ak état di tëral lu la médecin yi ne lii mooy tax jàngoro ji dañ loola ngay topp mu neex la mu naqari la boo ko deful nag. résultat bi mën na mais mais mais loo mënti wax rek da nga mel ne xawal. Mhm. koo xamante ne da nga takk say rajo rek di ratatati di wax mais teguloo ko ci yoon. teguloo ko ci dëgg teguloo ko ci charia. kon kon maanaam at mi dafa dafa jaadu ñu nangul médecin yi ñooy ulul amri. waaye amul nangul dafa war. waajib la wax nga dëgg. dafa war parce que ñoo ko jàngee woon nag wax dëgg yàlla. wa ulul la wax. te ulul amri fi mu ne nii kenn du ko tekkee ab xalif général. kenn du ko tekkee Maodo fay miy jàng alif lam mim zalikal kitab ba mu ne jinne ci wanaas ma nga ca médecin yi. waaw fii toll nii wax leen nan la ñuy faje jàngoro jii Mhm. ku mu dal nan la ñuy mën a gaawee daw ñu ne la bu la dalee kat waaxul gaaw wala boo njortee lii ak lii ak lii mooy signes yi waaxul nga dem bu ñu la tegee flash bi mu romb 37 dem 38 dem 40 dawal seeti sa bopp boo demee ñu ne la ah, affaire bi dal na la mi mi ñu ngi ci réew mu doy waar. xam nga am na ñoo xamante ni ba fi may wax yow gëmuñu jàngoro ji. am na ñu koy wax sax. ñàkki teggin googu fan la am. <laughs> ah loolu ko tuddee. mais ñàkki <laughs> mais mais Chine lafa fa dee ñaata nit lañ est-ce que neex na leen. Mm-hmm. États-Unis la fay dee ne ñaata nit lañ est-ce que neex na leen. Mm-hmm. France li fay dee ñaata nit lañ ak est-ce que neex na leen. ngay taxaw di def say ojo parce que reer nga ba suur naan nga sa ataaya taxaw def sa ojo ne yéen a ngi wax de waaye lii daal dara amu ci ay mais kan nga yàpp. est-ce kan nga yàpp. yow yow wax dëgg yàlla de waaw tegginuwul de. non du teggin. waaw tegginuwul de. te maslaha bi nag dafa bari dafa jéggi dayo kasratul maslaha tuaddi al mashakil mhm. problème rek lay indi boo waxee ñu naan la non na dem négocier ku muy négocier kan la ñuy négocier yow yàlla yëkkati lim la jox jox la pour nga régler ko nga ni da ngay négocier looy négocier waaw bu dee loolu la bu dee loolu la kilifa gi ngay dem di négocier ak moom bu bëñam di metti na ko fajal boppam daa day dem te du perte bu amee bu amee bu amee ulcère na ko fajal boppam day dagg bio avion dem bitim réew mhm. kan lay dénk boppam fajkat yi médecin bi. mu ne ko summikul mu summeeku summil faw xëya bi mu summi summi survêtement bi def yaramu neen mu jël appareil teg gauche teg droite ne la lii moo la dal jóg du la laaj sa tur de au suivant lay wax du la laaj sa tur jóg dem ci bureau am toog. mu tegee fooyu ordinance bi nag la naan la noo tudd nga ne Maodo Faye laa tudd mu soog a bind sa tur foo dëkk lii moo la dal demal ci pharmacie bi. nga jënd lii nga daw jëndi ko ñëw mu ne la nii nga koy jëfandikoo dans six mois nga ñëwaat rendez boobu doo ko faussé dañoo euh, yàpp nit ñi laa wax nañu dellu siwaat ci seen i bopp ak seen i xel Maodo ñaari farata danga ko fas yéenee def yow ñi wax ci télé yeeg rajo yi nañu téye seen gémmiñ ñaari farata danga koy fas yéene def benn simple nit moo la koy bàyyiloo hmm? waaw laaj ma yan la. moom laa leen moo tax ma ne teg. koor gi ngay koor tey jii. Mhm. tey boo demoon ba yëg ci sa bopp jàngoro. Mhm. métit mhm. nga jóg dem. fekk yaa ngi yaa ngi ci di septième jour su ma juumul. nga dem ci médecin tey jii mu ne la ah Maodo yow mii kat xool naa la waaye gis naa ni sa koor gi bu continuer sa bakkan mën na cee des da ngay continuer woor. xalaatu ma ko ci àddina. médecin boobu ñaata nit lañ. Hmm? du kenn nit. bu ñuy dem màkk. mu gën ma jël bu gën a terre à bu ñuy dem màkk. lu ñu lay wax demal nga defi visite. ba xam apt nga wala déet ba ah. xam apt nga wala déet. nga dem gis benn médecin boo xamante ni moo yor caméraman caméraman bi. mu hmm. defal la visite ñëw taxaw. ne a ah, wax dëgg yàlla day li makka jànkuwanteel ci coono sa yaram àttanu ko ren mënoo dem boo demee des ca. te te muy farata ci yow. boo demee des ca. Hmm. da ngay dem. ah déedéet. woor du farata ci ki ko ah, mën. ah kay ju eh, aj makka du farata ci ku ko ci ku am ko. Hmm. léegi ñu taxaw médecin na la jàngoro jii di Covid 19 jële nañ ci li koy joxe te du médecin Sénégal dong de monde entier jële nañ ci li koy joxe mooy ni ñu moytandiku salte moytandiku joxantey loxo. Mhm. moytandiku daje yi. nga ni noonu nañu daje mais nañ ko organiser mais nañ ma wax ci charia charian maîtriser wu ma ko. damay laaj sariyan nañ ma wax fan la yonent bi wax ni bu ngeen di julli na ngeen di amee distance su un mètre Maodo Malick fa nga nekk di fa jiite. Mm-hmm. pour yow organisation boobu gisoo ko fenn. c'est faux c'est assez faux. kenn wërta ah Maodo dama ni la tegal lii ma waxal la yow boo yoroon jumaa di ko jiite ba dara xewagul ba jàngoro ji xewagul Maodo boo demee ñu ne imaam a ngoog bismillah lan ngay njëkk a wax bu ñu liqaamee ba pare. defar leen sàppa yi sawwu sufuufakum waaw wa saddul xalal. Mhm. loolu mooy sunna sayyiduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. mooy ni defar leen sàppe yi. Mhm. te ngeen raj raj loo mbagg ak mbagg. baaraam bu ndaw bii nga yore danga koy teg mu sës ci baaraam bu ndaw bi nga baaraam ku kii dend ak yow féete sa ndeyjoor wala sa càmmoñ. sunna la yonent bi da daan taxaw dugg ci benn sàppe ñaari sàppe ba ñetti sàppe di leen jubanti. teg ca teg ca xadis nag ne leen du ngeen nekk di julli mukk te fekkul ne seen sàppe yi jaar na yoon waa léegi question bi may posé foofu ki mën a dem bay roy ni peut-être Maodo yaa ngi may bàyyi xel. ki mën a dem bay roy ni peut-être bu ñu demee ca jàkka ja wala ci jumaa ja def espace un mètre danañ mën a julli tegoo ko ci charia. ah bon du charia. du charia te dem ca jàkka ja du farata dem jumaa du farata. Maodo bu demee ba taw. di taw non mais déet yàlla mu wax ci alxuraan ne kat Isa nuudiya li salaat min yawmil. min yawmil jumaati. fas'aw ilaa zikrillaahi. booba dara xewul. ah bon ah xel du jariñ lu dul xalaat booba jàmm dong xew la preuve est que Maodo yow boo demee di julli ji jumaa bi nga ne tëll sa buntu kër seen sa këru dëkkandoo di tàkk jëppet sañ ngaa romb sa këru dëkkandoo dem julli ji jumaa Maodo bu jumaa doon farata suñu jigéen ñi duñ leen bàyyi ca kër ga ki feebar duñ ko bàyyi ca kër ga ki am ngànt ki amee bor duñ ko bàyyi ca kër ga te bor tax na yonent bi ne nit jaruta dem ca jàkk non man li ma comprendre lul mooy naka la yàlla di waxee ne suñ leen woowee ci bisu àjjuma dem leen ah ngeen julli ji fas xam la wax waaw fas awi la zikrillah waaw xam nga fas dafa mel ne feelu amri la dafa ñëw digal fas awi la zikrillah waaw waaw lan lay wax hayya ala salaat waaw lan moo indi lan moo indi sallu fi manazilikum xëy na moom la lu xew ngelaw wala taw. waaye lan mooy ngelaw la xew mooy li xew jamono ji ca nga koy atte. mooy corona bi. mais mooy jàngoro ji jàngoro ji wax nañ la ne la bokk na ci li koy provoqué dendandoo gi ngeen di dendandoo ak bokkalanteeg loxo yeeg saafaxanteeg yooyu bàyyi leen ko. waay waay waay maa ngi lay dégg comprendre kon yow léegi façon ilaa zikr laay bu dara xewul xayrul. bu dara xewul bu jàmm rek. jàmm rek day xew bu jàmm rek am. waaye waay bu dara nag dootul Maodo yàlla neewu la <laughs> sa ju grande mosquée bii ngay dem di jullee ji bu bal yi naan ratatatatat xuusal ci bal yi nga dem julli ji juma gis nga li ñuy wax ñoo ko gën a tay ñoo ko gën a jàng xam nga lu ñu bëgg mhm. diw nee na walla indi polémique jaxase te bëri na ko naan la na ñu dem jàkk doo ko gis ci jàkk fa mu dëkk coowaan nga mu dëkk doo ko gis ci jàkk hmm? du jàkkay Seydil Haaji Malick du jàkkay Serigne Babacar Sy du mbalaanu wasifa du xadaratul jumaa ba noppi amee nit ñi ci rajo yeeg télé yi ne nañu ubbi jàkka yi ku ñu koy ubbil ubbiluñ la ko. <laughs> sëñ Babacar. non non xam nga wax du neex man sama dañ may dañ may dàkkantele ni da nga tàng. Mhm. mais wax bu jotee rek waxal dëgg gi mu mhm. jeex. Mhm. bul seet ni yow yaa sañ am nga sa micro yow yaa xam am nga sa micro déedéet li bay lekk wala xar bay curpi curpi li xar lekk bay curpi curpi bay lekk na ko ni nuus dama ni jàngoro ji yi ku ci violé li nga xamante ni moom la charia tëral yonent bi daan ko jëfandikoo boroom xam-xam yi jëfandikoo ko topp leen ci ngay indi sa xalaatu bopp ubbi leen jàkka yi ñu julli jàng alxuraan ñu dem ba mu yàgg nga daw ne ubbi leen ko bàyyi leen ko noonu af afal leen ko ngeen ubbi ko bàyyi noonu sax af afal loolu mooy waxi lan waxi yabaat yooyu kon yow jàpp jàpp nga ne yow ñàkk ubbi jàkka yi ci corona bi du bàkkaar du dara du amul benn bàkkaar fu muy doone bàkkaar man maa njëkk man maa njëkk bokk ci ñi njëkk a tëj yow sa jàkka yàgg na yàgg na ubbi leen ko luñ koy ubbi yow yaa ñuy wax ñu ubbi ko ñun bu nettoyé ko jotee danañ dem désinfecté ko nettoyé ko mais mais li li ñu tënk li ñu tënk bu waxtu jul gis nga bu nodd jotee maay ànd ak bilaal ba ba mu egg mu ngi may dégg mu taxaw ñu def suñu ñaari rakaa mu noddu ñu julli ñun ñaar ma daldi génn tëj jàkk ji dem. est que ñun fii ñu toll nii ñoom ñii ratatati jëluñu suñuy mbir wékk leen ko déglu wuñ leen ñi ñuy déglu ña ngay topp li al li li yonent bi wax li alquran wax wa ulul amr ulul amr jooj nag du ko dindi kenn du ko dindi mooy médecin yi fii ñu toll nii dañuy caaxaan rek léeg-léeg nit wax la loo xamante ni boo ko toppee ba au fond da nga naan da koy yërëm sax danga naan noon lii man man man nan la ko nit mën a yéenee askanam Sénégal fii ñu toll nii boo boo jëmee gauche ñiy jëm droite jaxase jaxase jaxase ba ñi lay jiite dañuy mujj sax jaxasoo duñ xam fu ñu jëm. aynal ma far. Mm-hmm. aynal ma far wax nga dëgg aynal mafar mm-hmm. parce que waxtaan wi dafa neex ba nee nañ ma ñaari minute daanaka moo ma dese ndax parce que dafa gaaw parce que tellement dama lay déglu alors man bi ma lay mujjee laaj xam naa sax ci ngay jaare nga def xitaam bi mooy sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam i kër mhm. ci ñu tijji jàkka yi man d'accord ci ba fii may wax yow maa ngi dégg nag ay rumeur parce que rumeur yi li ko indi mooy wajo wajo jaj ji ci rajo yeeg télé yeeg yu kenn xamul mhm. mën nañ d'accord sax nga ni jumaa ji ñi fa nekk di ko toppatoo c'est une trentaine de personnes mm-hmm. nañu julli ci jumaa ja bu waxtu yu jotee nañu julli ci jàkka ji bu waxtu yu juróom yi jotee kooku mën nañ la ko nangul mais mais mais boo ca bëggee joggi nag ni li xew bu yàggul rek ci benn juma ajuma bii paase kenn faale wul li ñuy tëral ñëpp a ñëw ñuy sësante mbagg defe ko ni norme yi mu am ci diine l'islam mais loolu xam nga la muy jur mhm. mën na walbatiku ñu ne mbir mi dal na Maodo Maodo nekkoon ci mbooloo moomu ka dendal wàll na ko keneen wàll na ko ndax dañuy nekk nag nag sax ci réew moo xamante ni dañuy dajale mille milliards ba pare mille milliards yooyu ñu nar ko jël def ko ci lii wala balaa ñu ko ciy def réew mi nekk kaw tey jii boo déggee lii xew lii xew ci lii dee mhm. da ngay tiit ah. da ngay tiit mu ngi gën a accéléré di dem mm-hmm. ñuy toog naan dañuy négocier pour ñu ubbi jàkka fan la tegu teguñu ko ci diine du kenn laa wax nag tabaarakallaahu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin salaamu aleykum wa rahmatullahi kon nag bokki salaamun minallaahi aleykum wa rahmatuhu wa barik yàlla defal ñu sutura